yéen a ngi ñuy topp ci Fafa TV. Fafa TV détruire famille lañ nar famille dootu taxaw ñàkkal jom askan wi lañ nar te ñu ngi koy def ci seeni filmu di ko def ci lépp ngir lan lii fi yonent bi bàyyi woon sallallahu alayhi wa sallam muy risaala bi lañ bëggatul a gis ñoom ci kaw suuf lañ bëgg a jeexal ci kaw suuf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 mbokki jàmm yàlla yi euh, ñu ngi santaat sunu borom subhanahu wa taala di ko sàkkoo dimbandikoo ci sunu lépp di làqu itam ci gannaawam mu musal ñu ci xayu sunu bakkan yi ak ñaawtee fi sunu jëf yi ndax sunuy gàllankoor yëpp ci ñaar yooyu la tënku muy ñaawtee fu sunuy jëf ak ñaawteefu sunuy wax yal nañ ci yàlla musal bañ mën a teqalikoog ñoom ah, fan yii nag ñu tollu fan yi <clears throat> waajtaay la ci weer wu màgg woo xam ne mu ngi ñëw di gan goo xam ne lim lay andil geneen gan mënut la koo andil muy weeru koor bu fekkoon ne dañuy wax ne weer wii di ñëw kat da war a ami gan buy ñëw nag am na lum lay andil ci yóbbal mën naa am mat na million wala ñaari million wala milliar <coughs> gan googu da nga ko waajal ndax loolu ñu wax ne moom lay indil gan gii nag di ñëw lim ñuy indil dafa raw ay milliar lim ñuy indil ay xeeti ngëneel laaki yiw yoo xam ne pay ga xajul fii ci àdduna mu gàtt mii looloo waral yonent bi alayhi salaatu wassalaam waxoon na xeet bi doon leen bégal ci fan yii di ñëw pour ñu bàyyi ci xel bu baax ne leen weeru koorangoog mu ngi leen di ñëwal weeru barke la barkeb suñ borom subhanahu wa taala danay wàcc ci weer yépp waaye rawatina ci weer wii mu tegoon ca ne nag suñ borom moo ko farataal ci yéen ne dee leen ko woor ne weer la woo xam ne bunti aljanna yi dañ leen di ubbi yal nañ bokk ci jaam ña nga xam ne bunti yooyu ñoom lañ ko ubbil nee na itam bunti sawara yi dañ leen di tëj ña bunti sawara di tëju ci seen kanam te dootul ubbeeku mukk pour ñoom yal nañ ci yàlla boole kon kat weer wi bu ñu yemoon ci ñaar yi rek doy na wax nañ ne barke la waaye yemuñ ca ñu ne bunti aljanna ya am na ñum ubbeekul waaye bunti sawara ya itam am na ñoo xam ne tëju ci seen kanam mu tegaat ca ne itam way luy saytaane yi bi ma naa saytaane yi nga xam ne ñooy seytaane yu mag yi ndax ni nga gisee nit ñi ëppante ay maratib ay daraja ci wàllu mbaax ak ci wàllu àdduna saytaane yi noonu lañuy dundee ñoom itam ca la ñuy dund mu dik seytaane dañ caa dañ caa rawante ña nga xam ne nag ñoo ca man raw ca buñ leen tënkee kon xam nga ne ñu ndaw ña taxuñ ñuy wax moo tax mu tudd ñu ne way féttirlu ya ca seytaane ya ñoom itam weer wii di ñëw dañ leen di tënk kon am na ci jaam ñoo xam ne suñ borom dana leen tënkal seytaane ci weer wii di ñëw ba duñ man ci ñoom dara Euh, nañ leen di tënkee nag moom moo ko xam moom suñ borom subhanahu wa taala waaye comme nee nañ buntu aljanna dana ci ubbeeku buntu sawara dana ci ubbeeku ci aw nit te xam nañ ne bunti aljanna ya ubbeekuwut pour ñëpp bunti sawara yi itam tëjuwuñ pour ñëpp kon kay noonu ci la ñuy xamee ne seytaane yi itam way féeteerlu yooyu jëm jénguñ leen pour ñëpp ñay góor góorlu di dimbandikoo seen borom subhanahu wa ñoom la yàlla waxal ñoom la yonent bi alayhi salaatu wasalaam di bégal nii ñooñu nag yàlla nañ ca bokk mu andi beneen mbégte ne mu leen di xaar ci biir weer wi ak guddi la gu tuddee laylatul qadri mu ne guddi googu bu la yàlla dimbalee nga tombeel ak moom def ci ay jaamu suñ borom dana la ca bindal tiyaabo yi ku taxaw di jaamu yàlla eh, lu ëpp junni weer doon jaamu yàlla ca guddi ya ak bëccëg ya waaye itam di wooraale bëccëg ya genn guddee ngi ci biir weer wii di ñëw eh, yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ñuy bégal ne guddi googu da ko bàyyi xel ci weer wii di ñëw lay ñëw boo tombeek moom daañ la ca bindal tiyaabooy ku jaamu yàlla lu ëpp junniy weer bi maanaa tiyaabooy ku dund juróom-ñett fukki at ci genn guddi kon weer wii di ñëw weer wu rëy la weer wu màgg la yonentu bi alayhi salaatu wassalaam teg ca ne tax na ba guddi googu ku ko yàlla xañ ah, kooku mooy ki xañu bu fekkee ne am na ku xañu ku ñàkk dëgg mooy ki yëg lii ne mu ngi ñëw ci weer wii di ñëw bàyyi wut ko xel ba suñ borom xañ ko ne na kii mooy ki xañu dëgg ah, yàlla buñ doon ñoo ñëwaay moo tax ñu ne itam comme weer weer la woo xam ne nii la bindoo nan ko nan ko teeroo yeesalaat yéene yi kenn ku nekk yeesal yéenam ci yii mu fi dégg ne fas naa yéene bokk ci jaam ñi nga xam ne ñoom la yonent bi doon bégalee lii sallallahu alayhi wa sallam ah fasaat sunu dogu ci fas yéene jëfee e, ndigali borom bi tabaraka wa taala bàyyi tere yi ci mbooleem waxtu yi barke yooyu di ñëw loolu kenn ku nekk na ko waajale weeru koor maanaam yeesalaat yéene yi pas-pas yi ak dogu gi ci ne ñañuy xañ weer wii di ñëw day fas naa yéen duma ca bokk loolu nag yéene la waaye la la koy may mooy nga sax ci topp yi la koy may mooy nga moytandiku lépp loo xam ne xeetu ñaawteef la ak bàkkaar la la koy may mooy nga setal sa xol seytaane bëggul xol bu set ndax ci xol lay dundee ak bakkan muy setadi ga fa nekk ak bànneex ya setadi googu ak bànneex yooyu ci la seytaane dundee nu mu gën a bëree ci bakkan beeg xol bi rek seytaane gën a dund ci xol boobu ak bakkan boobu bi maanaa gën a jekku borom gën a moom borom xol boobu nga xam ne am nay bànneexi ki e, ay e, xeeti mooy yu ca yu ca maanaam ay taq-taq kon yàlla nañ ci yàlla musal kon noonu bokk na ci ni nuy teeroo weer wi ñu laabal xol yi xol bu laab nag mooy li nga xam ne boo ko yóbbulee sa borom mu nangul la xol bu laab mooy li nga xam ne mooy tax sa boroom nangul la alal ya nga daan def ci yoon wi ak jëf ya nga daan def ci yoon wi waaye nee na boo yóbboon alal ju bari yóbbu njaboot yawmal qiyaama te yóbbuwaalewuloo xol bu set boobu waaye xol baa ngi fees del la ki bànneex ak i ñagg-ñagg ak i tilim tilim suñ borom du la ko nangul kon nan waajaat ci laabalaat xol yi lépp loo xam ne luy tilimalub xol la ñu ñu ñu ñu jukki ko ci sunu biir xol bañ a mayeti nag seytaane benn yoon mu mën ko faa defaat loolu nag nan koy nan koy amee mooy sax ci topp yi rek ñu ne itam ah, bokk na ci li ñu koy may mooy xol bu laa boo ko amee doom aadama yi yëpp da nga leen di bëgg mbaax mbaax nga leen di yéene kon kenn ku nekk ci ñun war nay nemmi ko mba am ëmbaluma kenn nooneel loolu nañ ko nañ ko waajalee sunu dugg ci weeru koor wi ñu ngi wér alhamdulilah yal na yàlla yokk wir gi waaye am na ñoo xam ne it ñu ngi bokk ak ñun wér gi bokk ak ñun askan wi ne ñoom ci askan wi lañ bokk bi maanaa ci jullit ñi lañ bokk bu ñu askan ñun jullit ñi lañ ko jublu weeru weeru koor wi ñëwee duñ ko mën a woor te ndaxam wéradi wuñ ñooñu luy seen ëpp tënk xol bu laabadi mm-hmm. ay ñaawteef yoo xam ne ñu ngi koy def mooy nekk seeni tënk ba diggante fi jant bi euh, maanaam fi fi fajar di xaree ak fi jant bi sooyee ndiir su gàttu soosu du ñu amuk muñ mën caa téye seeni bakkan ci lekk yeeg naan yeeg ya ci des moo tax benn waaye mos naa ñëw ci alxasan albasri rahimahullah ne ko man de dama di koo xam ne guddi daal mënuma cee def dara mënuma cee julli doonte ñaari rakk la mu ne ko dafa am ay jéng yu wër sa xol bi jéng yooyu mooy tax doo mën a jóg julli ñaari rakk ci guddi gi ba lu ko ëpp dafa ñëw ne ko laa nastatiu qiyaama al lam ko wax mooy qayyadatka xataayaaka ay jéngi ñaawteef ak ci bàkkaar mooy yàlla moo la jéng ba doo mën a def julli guddi ndem nag jéngi bàkkaar yooyu moo jéng ba doo mën a def julli guddi moo jéng ñi itam ba duñ mën a wor mooy jéng ñële itam ba duñ mën a julli ci gàttal mooy jéng doom aadama bi ba yu baax yi yépp da cay da cay da kon nanu yeesalaat yéene yi ñëwalaat pas-pas yi laabalaat xol yi loolu mooy bokk na ci niñ daan teeroo weeru koor waaye bokk nañ ci ni nuy teeroo weeru koor itam xam xaymaay waxtu yii di ñëw ñu xam xayma jim jim làmboo comme niñ ko defee ci xutba bi nii ku déglu xutba bi tey da nga xam ne ay bis a ngi ñëw yu am xayma xayma mooy valeur ndeke ay bés a ngi ñëw yoo xam ne seen xayma ah, yeneen bis yi amuñ ko nga xam loolu dana tax nga bàyyi ko xel ndax bëriyaat na nit ki di sànq yenn bis yu mel noonu ak waxtu yu mel noonu réer a ko waral boo xamee nag xayma ji da góor góorgóorlu ba weeru koor yi bu nee bu ne cëpp rek loolu sax danga waroon a góorgóorlu mela woo ko laata weeru koor wii ñëw waaye rawatina nag bu ñëwee doo nangu benn minute raw la boo deful ci topp doo nangu benn minute raw la boo deful ci topp moo xam topp wax la wala topp jëf la ak ca xeeti jëf ya nag jëf yu baax yi yépp doo doo ca dindi benn weeru koor wii nag dafa bokk ci xeeti fan yi nga xam ne ñoo ëpp barke waaye dafa tuuti lool fanweeri fan rekk la moo tax suñ borom ne ay yaaman daat bëriwut kon góor góorlu leen ba li ci nekk ci ay yiw ngeen màngu ko boo ko màngul bis dana ñëw ñu wan la lañuy fay ña ko daan màng rëcc gu rëy juddu ci sa ndax ñun ñëpp daañ tasewaat kenn ku nekk ñu koy fay E, tiyaabo ya nga xam ne moom la ko suñ borom dencaloon ci fan yu màgg yooya yow ma ko sàgganee woon rëccoo nga lay xaar ca fan yooya kon yow mbokk mi nga xam ne daa woo woor ngir topp sa bànneexu mbakkan sii waay waay góor góorlul e, dagg jéngu yooyu nga xam ne moom la la sa bakkan bi jéng sa bànneexu bakkan bi jéng la ko góor góorlul nga dagg jéngu yooyu ba yii nuy wax ci ay tiyaabo bañ laa rëcc leenuy waxitam ci ak rëccu bañ laa dal liberté wóor mooy képp ku ko neenal da nga rëccu te it nag amul kenn koo xam ne mën na laa dabaatalal loo yii la rëcc du benn mbindeef bu la ko mënal ndax mbindeef meeg boppam bu ko rëccoon moom mënu koo dabaatalal boppam kon astuma la keneen fan yii noonu la mel bi maanaa jaamu yàlla yëpp nag noonu la mel julli noonu la mel kenn mënut la koo dabaatalal bu la rëccee ñàkk nga amul kenn koo xam ne ëllëg bu ñuy fay way julli ya mën na laa dig ne la lañuy ñuy fay gaaya danaa la ko jox wala danaa obligé yàlla mu jox la ko déedéet ku la ko dig nax na la kon mbokk yi weeru koor ngoog di ñëw weeru muñ la weeru moom sa bakkan la weeru taxaw di jaamu yàlla ca guddi ya la waaye itam weeru ñaan la weeru toroxlu la subhanahu wa ci kanam borom bi subhanahu wa taala moo tax nañu bég ñun ñëpp ci fan yii di ñëw yonentu bi alayhi salaatu wassalaam bégal nañu jullit ñu njëkk ña dañ daan bég ci yiw wu daan bàyyi koo ca borom ba di ñëw comme gis nga saari yi bi ñu daan wàcc bu aw saar wàccaan jullit ñi dañuy bëgg alquran di ko nettali ne wa ida ma a suura fa minhum man yaqulu ayukum zaadatu hadihi imana fa ama alladina amanu fa zaadathum imana wa hum yastabsirun dañ daan bëgg ndax xam nañ ne saar wu wàcc rek ay xéewal ay ngëneel la indi ko defee nag noonee la ñuy bëggee encore ci fan yii di ñëw ak lim ñuy indil nañ ca bëgg lool te bàyyi ko xel ñu bañ a niroog nag ñii nga xam ne bu fan yii di jublu si ñoom dañuy commencé di tawat naan weer wi day nangam ak i nangam weeru coono la weeru nangam la am sax ñoo xam ne seytaane àgg na ak ñoom ba naan leen dem de leenu leen ca place ya ngeen dundal fa seen bakkan yi gaaw ci semaine bu mujj bii balaa weeru koor wee ñëw dootu leen ko man balaa hôtel yee tëj yooyu seytaane àgg na ci ba ay télévision euh, dañ ciy faral di wax ma ne ah Sénégal àgg nañ fu yéeme nag ci ne yoo weeru baraxlu wi bu buñ ñëwee ba ca mujj dañoo war a gaaw profité ci ay xeeti mooy yàlla dundal bakkan balaa weer wi di ñëw muy weeru koor kii teeroo noonu weeru koor yàlla xañ na ko weeru koor ba noppi te weeru koor ak seegut yonentu bi alayhi salaatu wassalaam moom mook sahaaba yi dañ daan def bu weeru eh, koor wi jublu si ñu gën a góor góorlu ci yokk seeni jam yàlla ñun ñu ne nañ góor góorlu ci yokk sunuy mooy yàlla ñun maazallah dañ daan góor góorlu ci yokk seeni nawaafil yokk seen sarax yokk seen njàngum alquran yokk seen koori gàtt nga yokk seeni i adkaar seen i seeni tasbihaat kon yooyu nga xam ne télévision yi nga xam ne dañ leen a jàpp ngëb leen jéng leen ñoom itam am fu ñu leen jëmale te mooy ñu sànq jaam ñi dañuy moytandiku xeeti tele yooyu ak xeeti rajo yooyu nga xam ne ñooy wax ci semaine yu mujj yi nangam ak nangam ñu ne itam weeru koor bokk na ci yëg-yëg yi muy def ci ci ñun buy jublu si mooy dañu war a yëg ne dëgg la sunuy xel ak sunuy xol ak sunuy arwaax laaboon na ndax ay jullit lañu waaye weer a ngi ñëw nag yoo xam ne fóot ma muy fóotaat xel yi xol yi ak bakkan yi ak nam koy setalee fukki weer yi des ak benn mënu ko kon nañu bàyyiwaat xel loolu te xam ne xol yi dañuy gën a setaat ci ngay gisee sax boo koy xool fan yooyu jàkka yi ci lay gën a dund loolu moom màndarga la moo xam ne suñu borom defal na ko weeru koor jàkka yi ci lay gën a dund sarax yi ci lay gën a góor góorgóorlu yi ci xeetu jàmm yi ci xeetu jàmmu yàlla yi ci lay gën a bëri ndax weeru xéewal la woo xam ne loo ci def suñ borom subhanahu wa taala ma la ko dencal kon liñ ci tënkoon yëpp mënuñ ko wax benn par benn waaye ñu tënki ñu ñu jël ci ñaari tomb yu mënta ñàkk benn bi ci des mooy nan góor góor lu xam attey weeru koor xam gi itam lu am solo la waaw xam ngëneel yii ne mu ngi ñëw baax na lool waaye nga xam itam atte yi da koy gën baaxal ndax boo xamee atte yi weeru koor ah, ca ngay mën a xamee ya koy yàq ak ya koy maanaam yay wàññi tiyaabo ya bu ko yàqulit wàññi tiyaabo ya ca ngay mën a sàmmee eh, aadaab ya maanaam teggiin ya ak yar ya ca war ca ngay mën a góor góorloo ba sa làmmiñ wii nga gën koo mën a dottu maanaam nga gën koo mën a téye ndax bari na kat koo xam ne ñàkk a xam attey weeru koor yóbbee na ko bu ñu demee ba ca biir weeru koor wa ma ngay sonn di woor di mar di xiif waaye ma ngi ko booleeg yeneen yoo xam ne yëgul ne yii day yàq li muy def muy jëw yàq ya ci des bi ci des nag mooy bi ñuy tëjee mbokk yi weeru koor occasion la pour ñu soppi sunu sunu dund mbaax yii yëpp ñu doon wax ne nañ ko waajalee weer wi nañ góorlu ba doxee ci soppeeku ba faw maanaam weeru koor sababal ñu dugg ci cadre topp yàlla ak ragal yàlla goo xam ne dootuñ ci génn mukk dootuñ doon ñoo xam ne dañuy euh, góor góorlu ci weer wi bu weer wi paasee ñu doonaat ñeneen la loolu moom yeneen musiba la yonentu bi aleyhi salaatu wassalaam bu weeru koor ñëwaan da daan wàññi ay lekkam bi maanaa ñun ñëpp kon dañoo war a wàññi sunuy lekk ndax bokk na ci li jublu ci weeru koor mooy nit ki tàggat boppam ci néewal ay lekk loolu min maqasidi siyaam taqlilu taam waaye li nu seetlu weeru koor wi léegi bu ñëwee dangay gis ne wal lieu ñu wàññi sunuy lekk ak sunuy dépense léegi dépense yi day yokk lekk gi day yokk kon mu mel ni xiif bañ ci doon wut pour gën a laabal sunuy ruux sunuy xol seytaane ñëwaat na ci beneen façon ah, ma doon wax ne ndax jotul léegi ñu xoolaat weeru koor liñ ci waroon a mën a gañe te seytaane mu ngi koy mu ñu koy xañ ñu jéem koo dajaleel lislaam ñooñ kër yu nekk su fekkoonte ne masalan seen dépense junni la woon ñaari junni ñee ñetti junni ci añ beeg reer beeg ndékki li comme ndékki la moom dem na léegi ñaari ñaari repas yi moo fi des lañ daan def ca benn repas ba ndax waruñ koo mën a jël am fuñ ko programme pour ëllëg ñu dimbalee ko way néew doole yi ah, loolu bokkoon na ci maqasidu siyaam moo tax nga gis ñi nga xam ne ñooy ñi amoon alal daan mën a jël lu bari ci weeru koor def ko ci way néew doole yi kon loolu mooy li nga xam ne moom lañuy ñuy tëjee di di di di jëfal nag suñ mbokki jullit yi nga xam ne weer weer yi passé yëpp ñu ngi sillonné di wër réew yi di wër réew mi di wër kilifa diina yi ngir yëg-yëg bu ñu am ci ne seytaane am na fu mu jëm ak réew mi foo xam ne yàlla bu mu fa àgg ak ñoom te commencé na di ko di ko di ko def ci sunuy tër-tër ak sunuy loi ba dem démb ñu doon dajaloo fële ca ndakaaru yal na yàlla fayal ñu leen jiw ndax loolu ñu doon def ñun ñëpp lañ koy defal comme nag mënuñ woon a ànd ak ñoom di wër kilifa diina yi di wër département yi ñoom ñu dagg ci seen poos dagg seen waxtu wër département yi yëpp yaakaar naa fim na ne ñu ngi ci ñeent fukki département ak ak nu mu tëddee juróom wër nañ yëpp fuñ fi tamit daañu wër kilifa ya fa nekk xamal leen fi réew mi jëm ak fiñ ci tolloogum ci tàggat sunuy doom ak sunuy sët sëtaat ci xeetu mooy yàlla yoo xam ne euh, neexul a tudd ci làmmiñ maanaam dem ba def sunu doom yii di ñëw ak sunu sët yi ñii di ay jigéen góor ñii di ay góor jigéen mbooloo yooyu doon daje démb yal na yàlla fayal ñu leen yiw ñu ngi waajal nag mel na ndaje mu mag moo xam ne insha allah eh, lañ ca bëgg mooy taxaw taxawaay boo xam ne xëy na bu mosee am ci Sénégal eh, néew na bu boobaa nag sama jëmm ji bu ma ko ca xeeb ndax ay jëmm rek a fay daje sama jëmm ji bu ma ko ca xeeb man benn jëmm laa yow benn jëmm nga comme ni waxoon ne jëmm yonent bi sallallahu alayhi dañ koo caricaturer maanaam dañ koo ñaawal ciw melo mu jaraloon ñun ñëpp ñu jóg dem ndakaaru ci palace de la nation def fa ndaje pour wane na sunub yonent duñ bàyyi kenn di ñaawal jëmmam loola luñ defoon dañ noonu yoo dañoo caricature jëmm ja waxoon nañ fii ne ñoom ñoom mënuñ ko ndax gisuñ yonent bi ñoom sallallahu alayhi wasallam kon buñ ne caricature nañ benn jëmm loola ak boppam wax ju amut la waaye nag comme askanee nañ ko sunub yonent rek ñu nit faaw ñu am naqar ñii nag caricature wuñ jëmmi yonent bi de en tant que être humain déedéet li valoriser jëmmi yonent bi sallallahu alayhi wasallam muy message bi ñu andi loon lañ caricature ñoom ndax buñ demee ba ne góor ndey ak bàyyi sax suñ daan yi léegi ngeen na ngeen ko bàyyi xel lu baax ak lenn nag ci suñ permis de conduire yi ndey ak baay dañ koy commencé di di ko fi jëlee détruire famille lañ nar famille dootu taxaw ñàkkal jom askan wi lañ nar te ñu ngi koy def ci seeni film di ko def ci lépp ngir lan lii fi yonent bi bàyyi woon sallallahu alayhi wa sallam muy risaala bi lañ bëggatul a gis ñoom ci kaw suuf lañ bëgg a jeexal ci kaw suuf ba ñooñu ñu wutal leen ay luwaa yu leen di fat ne bu kenn yëkkati làmmiñam wax ci ñoom te yow nga am sañ yëkkati sa làmmiñ wax ci rasulullah sallallahu alayhi wa ci yonent bi lu la neex wax ci yàlla lu la neex xeetu ñàkk teggin gu nekk mën nga ko wax ci sa borom tiga du toj waaye góor jigéen gii nag ñu ne la yow boo bindee ci moom mbaa nga wax ci moom yow la ñuy tuddee ne da ngaa commencé indi boddi ku wante dañ naan la ràpp cib kaso tëj la fa réew bu demee ba àgg foofa sunuy njiit dem ba àgg foofa war na ñoo xam ne ñoom seen direction ak sunu direction nekkatul benn bu boobaa nag dama ne message bi lañ jam alquran lañ jam sunnatu nabi sallallahu alayhi wa sallam lañ jam képp koo xam ne bañ ñaawalee jëmmam jaraloon na la nga jóg xalif général baa ci yam nag ak sëriñ ba ak imam ba bu kenn yeble xalif généraux yi dañ waa jógal seen boppu dem ca ndaje ma ñaawlu tër yii nga xam ne moom lañ nar teg ci kaw réew mi pour aar ngóor jigéen ak lawal ngóor jigéen ak jigéen góor ci biir xeet wi fan yooyu ma ngi ñëw ci kanam incha allah lii lancement rek la danañ ci defaat yeneeni xutba yuy ñëw bu soobee yàlla gannaaw weeru koor yi incha allah yal nañu yàlla boole ci ñi nga xam ne bu ñu bu ñu yëgee na ña ngay dimbale lislaam ñu bëgg waaye bu ñu yëgee na ña ngay ña ngay gaañ lislaam ñu mer ndax loolu dafa mooy ware na yow mii am nga wilaaya ci sa borom wilaaya dëgg mooy ki nga xam ne buñ laalee lislaam buñ jamee lislaam mu ne man lañ jam wilaaya dëgg mooy ki nga xam ne buñ dimbalee lislaam sukkandi lislaam mu ne man lañ man lañ sukkandi man lañ dimbalee loolu moom soo ko amee rek am nga wilaaya ci yàlla soo ko ñàkkee ñàkk nga lépp yal nañu yàlla boole ci ñooñ nga xam ne seen wilaaya ci yàlla yàlla dana ko nangu ah fii nga xam ne fi la état bi jëm ak réew mi ci soril jaam ñi seen borom yal na yàlla dox seen digganteeg ñàkk fa àgg mboolem tër yi nga xam ne ñu ngi ko tër pour geccangal diina geccangal ñooñ diina tër yooyu ak ña nga xam ne ñoo pare pour doxal ko yal na yàlla na saxal tër yaag ña koy doxal hada wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin allahuma salli wa sallim wa barik ala nabiyina muhammadin wa ala alih wéy leen di abone ci suñu seen bi di Fafa TV ngir ngeen mën a jot suñuy vidéo yu bees yi Fafa